di nuyu julit ni ginaaw loolu ñuy jot ndigal li nga xam ni na ci sëriñ abdul aziz ibnu sëriñ sidi ahmed ibnu sëriñ babacar si ibnu cheikh sidi alxaaji malik muy kàddu ñaax ak kàddu nimbal diggante nit ak boromam fa tabaarakallaahu comme ni mu ko waxee muy jamono ji nga xam ni lën lëndëm na ànd ki lënd na ko maamam ju baax ja cheikhul xalifa aboubacar si waxee woon lëndëm ànd ki lënd jamono jooju lañu toll ni ñu xamatuñu fu ñu jëm réer dikk na tabaarakallaahu la koy waral lépp seytaane ko waral jamono ji nga xamanteni kers amatu jamono ji nga xamanteni nimbal amatu ndax iblis fess na xoli ta kon ñu ñaan yalla yalla muccal ñu ci lool ndax iblis la waxon nak yalla ne ko dana dem waye am na ndi danaa gàddu nit ñëpp def lo len lu bon ba ëllëg mak ñom ñu and biir safara yalla ne ko dedet am na ño xamni man maa leen téel sama bopp ndax iblis pexem yépp mooy yàq ni ko alxuraan waxee yaa bani aadama an la taabudu seytaana innahu lakum adun mubin kon seytaane pexem yépp mooy yàq te seytaane noonu la fu ñu toll war nañ ci bàyyi xel di ko bàyyi xel moom tey di ñaan yàlla nu ñu ci yàlla musalee tabaarakallahu la maam Seydi El Hadji Malick ñaanoon ñaan yàlla yàlla boole ñu ci mu ilaahi faj al ilaahi faj al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittibaai sunnatin fi taraaxumi fa tabaraka allahu loolee tey ñaan googu muy ñaan yàlla ñu yàlla boole ñu ci ñooñuy topp sunna teyit bu ñu ci yàlla boolee musal nañu ci seytaane musal nañu ci ay pexeem li waral li tey mooy gis na ni jamono reyante gi benn ñaar nga jël jaasi waxante lu bon jur sa doom rey wala soode nit wala waxal nit lu bon wala jël dara di ko def te ba nga koy def sax ànd ak sa sago waaye lépp Iblis influence ba la ngay def sax tayoo ko ndax du jëfi nit gisit la malay daan def léegi nit yi defuñu ko waaye def nañ istix nit ñaa ngi def istixfaar mbokk yi nañuy faral def istixfaar lu bari kenn mu ko waxee gannaaw loolu mu ne nañu joxe ñaan gi gàtt na am solo mu ni buñ ko defee yàlla dinañu musal sukkandiku ca maamam ca ba mu ne addu bi bismillahi wal masani wa ayatil kursi zil maani وسورة الإخلاص زي التمجيد وفاز من مات مع التوحيد موتاخ مو يالا ديمبالي كو تي غيس غيسم مو جوخي نيان غي ني ساكو بيب جوليت ني ديكو ديف ني يالا ديمبالي ني موسل ني تي ليغا خامني مو في ام تبارك الله موي ني بوكو ديف فاتحه Ayatul kursi ikhlas fallaxi ak nas bu ñu ci noppé ñu jang ñaanu mamam ji nga xamanteni ni si ko ko bind waye lepp ngi ci biir mbokk yi ndax jamono lirik ki pas-pas lirik ki nit ci diine mi ngi fi pas-pas ya ngi rocceeku mu ne kon nañ koy def def ko suñu gannaay muy ñaan gi fa najina ya shaytani min kaydihi wa sallabil imani ñaan ko ba mu jeex tabarakallahu ñaan gu matale lepp gi ci bir ñuy ñaan bepp julit bu xeye jang li yalla musul ko musul si njabot yalla musul ko yalla musul njabotam lepp lo xamni ci walu moy yalla la te mi ngi fi mo xamni dika saxo yalla saxoo dana ko ci genné nee ñaan gi ku ko ñaan fa nga jaar iblis du fa jaar waaw fa la jinaa يالا نيو موسال موم يالا يا خالق يو ميغا خامني شيطان يا بن شيطان يا خالق الشيطان نيم كاي ديي وصل بالايمان كون شيطان كي بخيم اك ريكي جي. تبارك الله يالا نتي يالا موسال مو تاخو ني جوخي نيان جي نكو نييب دي ديف تبارك الله لولو موي ندغال دي نييب تاخاو سي ngir sàmm suñuy pas-pas السلام عليكم